أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوحد لي في رمضان الجزاء أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوحد لي في رمضان الجزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bu ngeen gisee jataay bi xam ne ndigal bàyyikoo na ci xalifa général de kulu murit Cheikh ñëw ci sëriñ Abbas Mbàkke mi xalifa maam Cerno Birahim ñëw ci alxaaji maam Cerno Mbàkke xalifa sëriñ Cheikh Awa Balla ci kilifte fëpp sëriñ Modou Maxtaar Mbàkke alxaaji sëriñ Gànna Mesere Maxtaar mooy yëglee ka fàttali bisub ñaan bisub sant bisub delluwaat njukkal sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmad Bamba alxemes fukki fan ak ñett ci weeru février atum 2020 ñu di ko yëgal mboolem njabootu seexul xadim gi yépp di ko yëgal mboolem seexi Serigne Touba yépp waaye nag di ko yëgal Serigne Abdou Samane Mbakke moom Serigne Sohaybu ak Serigne Bassirou Mbakke moom Serigne Abdou Khoudous ak Serigne Bassirou Mbakke moom Serigne Abdou Khadir Serigne Mamoun Mbakke moom sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Serigne Mahmoudan moom Serigne Modaw Balla Serigne Ahmadou Bariou Mbakke mu Cheikh Ahmadou Fadal Serigne Cheikh Anta Mbakke bu Daaru Salaam Serigne Modou Lo Ngaabu ak Serigne Cheikh Abdou moom Soxna Bali waaye di ko yëgal sous-préfet Mansour Diallo ak sëñ Ibrahima Sall di ko yëgal Aliou Thioune waaye di ko yëgal alhaaji Mbàkki yu fay ak mboolem njabootu Serigne Touba gi yépp bis mi nag xam ngeen ne at mu jot alhaaji Serigne Gana Messere Maxtaar da koy tudde kenn ci magi Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba yi ak njabootu Serigne Touba gi ren mu tudde ko Serigne Baara a Mbacke moom Serigne Mamor Diarra ak sëriñ Abdoul Karim Touré ak sëriñ Cheikh Mbacke moom Serigne Mbacke Fadiama ndax cër bu rëy bii bis bu rëy bii bi di bisub sant Serigne Touba Xaadimal Mustafa te Serigne Ngana Mesere coobare sëñ bi di ko def te ku ne xam na ne moom de bu santee sant war na ko ñu nit war nañoo jàpp ci sant ga sant sëñ bi santaale ko moom it ci engagement ci liggéeyub sëriñ bi mu jalal ko lu ne guddi ak bëccëg kon ni wàccee nuyoo boobu ci sëriñ Bassirou Mbacké Mbacké ku baax la moom it at mu ne ma wax ko moom it ne sëñ Gana mel ci sëñ bi rek yitteem ak taxawaayam moo tax mooy mu jaral ko dagg ay yitteem guddi ak bëccëg lépp lu muy def ah, ku ñëw fekk ko ci kuy damit bàyyi ko ci muy seede na it sëñ Seex te dane euh, bi nga xamee ne ndabal teraanga loo xam ne euh, kenn moomu ko kudu sëriñ Tuubaa Xaadimal Mustafaa muy def lu baax nag ki ci gën a wane ni sëñ bi mel kenn laal kàttanam tax mu daraja tuddee ko sunu Euh, kilifa gu baax gi di sëriñ Baara Xureja moom Maam Mor Jaara tey jëmm joo xam ne sëriñ bi moo ko utal aw tur keroog ba ko tuddee ci gàttal dana jëmma ngi ne joo xam ne lu ci mat a def def naa ko bu demoon bay mu kàllaf ma ne ko mët lemin jox ma satala gay mu gàntu dootu ko wàññi dara Maam Mor Jaara ne ko loolu lu mu doon mu ne ko mooy defar goo xam ne ak yàqu dootu ci topp kon cër la boo xam ne Serigne Touba moo ko ko fàggul ah, mu nekk diggante sëriñ tubaa ak Maam Mor Jaara ci noonu it nu boole noog sunu bokk yu baax yi moom it di sunu maam bi Serigne Abdou Karim Touré moom it ñëpp dégg liggéeyam ci mm, ci wetu ku baax ki Serigne Touba kon bu nu boolee bis boobu ak ñoom ñoom it ñoo ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ak Serigne Cheikh mi nga xam ne waroon na fee mën a teew moom it teewal fi ñëpp ndax ñëpp ñi ñu ko boole kenn ku ci nekk mën na fee teewal moroom ja ndax dara génn ci xaadimoro xaadimom xaadimul mu Serigne Gana léppam Serigne Touba la ndax ay nijaayam a ngi fii ay magam a ngi fii ay doomi ndeyam a ngi fii ñëpp mën nañ koo sukkal mën nañ koo raamal mën nañ koo doxal ak yónneen ngir sëriñ Tuubaa kon li man li ma ko wax ne coobaree sëriñ bi la loolu moom sëriñ bi la soob mu wax loo ko li muy wax am njàng mayu ko ko waaye nag ak bëgg a ngi ci yittee ngi ci sëñ bi nag boo doxee jëm ci moom mu gàttandul la boppam nag kon donte doon xam-xam lu sëñ bi ak jéem a le sëñ bi ah sëñ bi nag moom roof na ko roof na ko ca kàttan goo xam ne xamul sax fu mu jaar kenn xamul fu mu jaar ba def lu coobareem rek kon sëriñ Cheikh ne ne mi ngi koy woo ñëpp saam ak li ko wër mbakke fépp foo xam ne njabootu Mamour Jaara ña nga fa bëgg na bis bi ñor leen rawatina waa saam parce que yéen yëkkati kàddu yu tënku rek kàddu yoo xamante ni suñu kilifa di suñu sëriñ moo ñu ko yónni fii muy Cheikh Abou Bakrin ñoo ngi leen di indil nuyoo sëriñ abu Bakrin xalifa Cheikh Abdoul mu yabal ñu ñu ànd ak lenn ci njaboot gi ngir ñu teewe si di woote bii di sant bu baax sëriñ Gana Messere Maxtaar ci liggéey bu rëy bii nga xamante ni mi ngi koy defal sëriñ Touba te tànn mag ñi mu tànn tudde leen ko ni ko kilifa gii njëkk a waxe waxe rek kon du jar loolu ñu cay dellusiwaat siwaat xam ne sëriñ boo nee na ngi koy sant bu baax tey rafet lu bu baax a baax a baax cir bii nga xam ne cëréelu leen ko am ceeg mbég mbég mu rëy rëy rëy rëy nee na njaboot sëriñ bu Karim gi tamit ñëpp bég nañ ci muy bokki sëñ Abdou Karim yi ak taalibe sëñ Abdou Karim ñoom ñëpp bég nañ te rafetlu nañ ko bu baax a baax a wax ne nag moom dafa nekk ci tool boo xam ne toolub sëriñ Touba la di ci mbay mbayin mu rafet rafet rafet moom sëñ Gana Messere Mextaar di ci bay mbayin mu rafet rafet rafet rafet mbay moomee nag mu di ca gestuwaale mag ña mag ñi nga xamante ne ñoo toppoon sëriñ Touba te nanguloon ko ba nga xamante ne nii seeni guddeeg seeni bëccëg lépp dañu ko jébbaloon sëriñ Touba mu wàññeeku nag ngir xamal adduna mag ñooñee àndoon ak sëriñ Touba ngir bëgg ñi leen xamuteen xam leen ñi leen fàtte woon fàttaliku leen liggéey boobu yi ci la nekk guddeeg bëccëg loolu rek ko ñor kon sëñ boobu nee na mi ngi koy ñaanal bu baax a baax mu daje cee ngërëmal suñu borom ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal yàlla ci toolub sëñ Tuubaa nee na sëñ Gànna Mesere na leen nag bég na ci lool sant na ci lool gërëm na ci lool te tamit insha allahu fas nañ ci yéenee taxaw ànd ko ak njaboot gépp bu la tërees jotee soobi suñu borom fas na yéene teew ak ñu mën a àndal ci njaboot gi insha allahu di wax nga moo fi nekkal sëriñ Mbàkke ma sëriñ Seex nag mi ngi sant sëriñ Gànna bu baax ci bis bii muy woote di ci sant sëriñ Touba di ko ci delloo njukkal te muy lu war ku nekk te gannaaw bu ma ko tuddee sëriñ Baara Xuréja moom borom saam ak sëriñ Abdul Karim Touré bokk ci mag ñi mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi defar dara jaale ko nag sëriñ Seex sëriñ Cheikh mi ngi ko ci sant bu baax a baax ci cër bu rëy boobu ah, di woo nag képp koo xam ne njabootu sëriñ Mbacke Fadima ci nga bokk te mu jabooti leen di woo itam képp koo xam ne taalibe nga bu yaakaar sëriñ Mbacke Fadima wala ngay ab soppeem wala ngay xaritam di ñaan itam sunu borom yóbbu nu ci ak jàmm dëppali ñu ci ak ngërëmul sëriñ tuubaa def nañ ci tawféex ba ñu def ko ci bismillahi rahmaani rahim tàmbale ko ci jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ma toog fii ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ne mooy bisu sëriñ Gana Messere Muxtaar nga xam ne da ciy sant sëriñ Touba ma di ci toog fi nag di ci woo ay bokkam ñi mu bokkal ci ndey ñi mu bokkal ci baay ma di ci woo waay yeew gépp góor jigéen mag ndaw di ci woo itam ñi nga xam ne dañoo nekk Touba gi nga xam ne dañoo bokk moom ndey ak baay ma di leen woo ci bis bi nga xam ne sëñ amuñu lu bis bii nga xam ne Serigne Touba moo nu ko séddee te bi ñu ko séddee dana ko defal ci ki nga xam ne doom la ci noonu lépp la ci noonu ma di leen ci woo di ci woo Assane Diop mi nga xam te ne moo nekk sama xalifa fii ci yi Touba di ci woo waa yeew gépp di ci woo njabootu Biram Bay ci yeew di ci woo njabootu Abdoulahi Ndiaye di ci woo ab njabootu Xonn Diop ci yeew di ci woo njabootu Abdou Kébé ci yeew di ci woo waa yeew gépp góor jigéen mag ak ndaw mu ci woo bokki Touba yëpp. ci soppee Serigne Ganna Messere Mokhtar yi nga xam ne ñoo nekk ci Facebook ak WhatsApp kàddu yi ci ñoom la jëm ñu koy wax ci turu sunu jëwriñ sëriñ Mbacke Diop la serviteur Touba Espagne kaddu gi nag ñi ciy jiital ci woote bi Serigne Khadim Mbacke mi nga xam ni mooy sërub Cheikh du Fadal ca nekk ci suñu biir ak soxna Jaara Mbacke mi nga xam ni moo jiite soxna yi nekk ci biir daara ji yëpp di ci woo mbooleem koo xam ni ab soppe nga nekk ci biir réew mi ak bitim réew di ci woo waa Espagne. waa Brésil waa Italie waa Mauritanie waa Côte d'Ivoire waa Gambie mbooleem fu ab soppe mën a nekk ñi ngi lay woo ci cant gi nga xam ni moom la sëñ Gana Messere Mokhtar di sant Serigne Touba ak di ko delloo njukkal di ko ànd ak soppe yi nga xam ne ñoo ko sopp ci ànd ak moom ci liggéeyub Serigne Touba bi ci gàttal daal woote bi képp koo xam ni sëñ Gana mos na laa bégal senn saa ci liggéey bi muy liggéeyal Serigne tubaa ñi ngi lay woo hmm. euh, di wax nag képp koo xam ne yaa ngi ci biir réew mi boo ko manee bu àllarba ak jàmm na nga fanaan si ndax dafa am liggéey bu rëy buy xaar soppe yi ci bis bi nga xam ni mooy bisub cant gi. bis bi nag programme bi nam daan demee rek noonu lay demee ren nag am na ak soppiku bu ndaw goo xam ne dana ci am mooy li wutale ak nañ ko daan defee mu jëm ci wàll guddi gi fas nañ yéene bu ñu xëyee defe ko ni ñu ko daan defee jàng alxuraanul karim yenn doo ko ak di duurus xasida mbooleem daaray alxuraan yi ak mbooleem kuréel yi nga xam ne ñooy kuréeli soppe Sëriñ Ganna Messere Maxtaar yi bëccëg gi itam fas nañ yéene yendoo jàng xasida ànd koog mbooleem jàngkat yépp yi yëkkati yépp fas nañ ko yéene ànd ak ñoom ak mbooleem ñi nga xam ne ay sikkarkat yi yëkkati turi yàlla la bu ñu demee ba tusbaar jot ñu def bernde yi incha allah suñ ko fekkee jàmm ba tàkkusaan it nañ ko daan defee fas nañ yéene bu sëriñ bi ñëwee itam ñu geer teertoo ko nañ ko daan teertoo gatandoo ko nañ ko daan gatandoo suñ demee ba nga xam ne julli nañ timis ba noppi nag ci leen fas yéenee def nag cérémonie bi nga xam ne moom lañ daan def ren jii nag cérémonie bi lañ bëgg incha allah suñu ko defee ba noppi doog a wëyal bernde yi suñ berndee ba noppi nag ñu doog a mën a yeewiwaat gan ñi ndax gis ne barab yi fasantikoo na te it mbooloo mi fi ñëw bari nañ lool ren jii loolu moom mooy am ci programme bi noo ngi woo ñëpp fépp fu fa waay mën ne ci réew mi ak bitim réew. Serigne Gana nag dafa wax ne ñu ngi woo jullit yëpp rawatina taalibe yi Serigne yi nga xam ne ñoom la séqal Serigne bi te nga di ko diglu di ko seetaan di ko woo ci ay biir bi fasanti muy dagg ay itam di ñëw di ànd ak yow liggéeyam Serigne Touba <clears throat> nee na mi ngi woo ñëpp bàyyul kenn bàyyut fenn nee na rawatina ñi nga xam ne ñoom la séqal Touba. rawatina ñi nga xam ne ñoom la seqal saam ji ni ko sëñ Baara waxee kon Serigne Ngane nee na ñu ngi soññ ñëpp ci bi nga xamante ne bii ci lay sant Serigne tubaa ci lii nga xamante ni moom la ko Serigne Touba def dugal ko ci boppam di ko liggéeyloo ca toolam bu mag bi mu fax xelu ba am pas-pasab def ci noo xamante ne bii kenn defu ci lu toll noona muy sàkku it kilifa yi nga xam ne ñoom la bokkal dëkk bi. ak kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci bitim dëkk bi te di ko bàyyi xel di ko ñaanal di ko diglu di ko teg ci aw yoon nee na mi ngi leen di fàttali bis bi di leen soñu di soñu seen ak njaboot <clears throat> nee na bàyyut kenn bàyyut kenn kenn nag daj na fépp waaye rawatina ñi nga xamante ne bii nag comme noonu ma ko waxee soppe yi ak xarit yi ak wëllëre yi ci dëkk bi. di yëkkati ay kàddu nag yu jóge ci Seydil Mahamadul Moxtaar moom Serigne Cheikh Awa Balla mi nga xamee ni mooy léppi ngan na Mokhtar mi nga xamee ni moo am leen teg ñépp ngir jëmmi Cheikhul sëriñ Serigne Ahmadul Mokhtar nee na mm, Ganna mii nga xamee ni suñ boroom dafa dogal mu jofe ci moom ngir jëmmi Cheikhul Khadim neena de da eh, ak mbokk seede na ko du tey waaye itam lu jiitu la jëmu ko waaye itam lépp loo xamee ni ci wàllu diineem akuk maslaam akuk taalibeem lépp mi ngi koy seedeel doomu aadama yépp ne ab taalibe la waaye doom la lépp la ci kër gi mu sant ko lool gërëm ko lool di ko seedeel àdduna bépp nee na nag mu ngi kontaan lool di am mbégte ci doxin wii ak jàppin wii nga xamee ne noonu la jàppe Cheikhul Khadim dundal ko di ko jëf ba muy amal bis bi ci ndigal lépp lu mu def itam mi ngi ko def ci ndigalam musta def lenn loo xamee ni defu ko ci ndigalam moom Cheikh Ahmadul Muxtaar nee na loolu mi ngi koy seedeel ñëpp nee na itam di am mbégte ci bis bi saa yu ñëwee dana ñëw ci moom yeesalu ko waaye itam waxtaan ak moom ci ñi koy dara jaal ak ñi mu koy tuddee ba mu jox ko ci ndigal mu def loola nee na nag bi mu mewee wax ko ñii daana bég waaye gën naa bégati sëriñ Ganna sëriñ Modou Mokhtar nee na sa xel na gën a dal bu baax a baax nee na daal jëmmi sëriñ Tuubaa mi ngay liggéeyal yaa ngi liggéeyal koo xamee ni ko mat a liggéeyal la incha allah sa lépp dana jag fii waaye sa lépp dana jag fee nee na daal demal mu ngi lay bàyyeeg ki nga xamee ni mooy Cheikhul Khadim waaye mi ngi koy jaar yi sëriñ Cheikh Awa Balla di ko jaar itam ci maam Thierno di ko jaar ci mboole ci mbooleem jëmul sëriñ Tuubaa gépp bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu alxames fukki fan ak ñett ci weeru février ci Touba Sam jalu xeer bésub sant delloo njukkal sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba alhaaji ganna Messere Maxtaar daal nee na bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn ma balaayu amal amra لا تنخاد للأخراد نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيب ربيا